maaleykum mbokk yi eh, mbokk xibaar 24 ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaar ci émission bu bees tàq nag eh, tey yaakaar naa eh, dafa am rubrique bu bees boo xam ne ñëw na doole ku ci xibaar 24 di xibaar sport en route vers mondial 2022 bi nga xam ne moo ngi am fële ca Qatar ñu nar ci waxtaan tey nag yaakaar naa nekk 48 heures. avant Aliou Cissé di publier di publier liste bi nga xam ne mooy list bu Sénégal bi di 26 joueurs yi nga xam ne moom la ñu wax ñu war ko publier bu loolu jàllee tamit ci àddina bi gis ngeen ni sélection yu mag yëpp ñoo ngi publier seen liste dinañ ci ñëw waxtaan ci Sénégal mais waxtaan ci liste yooyu nga xam ne tàmbali naa génn gis nañ Brésil listam génn na coow li bari na polémique bi bari na gis nañ ne équipe bu mel ne équipe bu France mercredi suba la di ci descend war a def. Euh, conférence de presse wax listam yéen sélection yu mag yëpp Sénégal nag war a ñëw vendredi war a joxe muy lu xat ndax Sénégal ku ne xam ne dafa bari ay joueurs te jamono yu joueurs yëpp ñoo ngi toj ci àddina bi. championnat Angleterre liga ni ñu ko faral di waxee le cinq grands championnats joueurs yi fi nekk yëpp ñoo ngi doxal léegi nag liste bi naka lay demee yan joueurs ñoo gën a nekk au top yan joueurs ñoo gën a nekk ñoo gën a taxaw jamono yu ñu nekk te gis nañ benn cas am Sénégal muy cas Saliou Ciss amul club mais gis nañ Brésil indi joueur bu amul club mooy Daniel Alves. bi ne woon Barcelone amul club ba dafa demoon di entraînement ci réserve yi te gis nañ ne coach Brésil bi eh, boole na ko ci liste 26 yi loolu yëpp dañ ci war waxtaan ba xam Saliou Ciss dafa war a dem war a dem bu ñu jeexal nag danañ dugg ci li nga xam ne mooy compétition bi nga xam ne ñëpp xam nañ ne les compétitions des grands mooy fi nga xam ne fa la ponkale di daje muy Ligue des champions ak tamit Europa League bi tirage bi ñëw na gis nañu ay ay grandes affiches yu mag yu neex ñun xam nañ ne Sadio Mané mooy suñu Messi mu war a dajeeg Paris Sadio Mané contre Mbappé noonu la gars yi tuddee match bi gis nañ Liverpool war a am Real Madrid muy revanche double revanche ndax xam na ne Real Madrid dafa gagné woon Liverpool en 2018 xañ ko final Ligue des Champions gagnéwaat ko 2021 bi xañaat ko Ligue des Champions wala 2022 bi du moins 2021 2022 ci saison bi kon Liverpool tey ak jafe-jafe yi Liverpool nekk ñàkk Sadio Mané jënd seen dawrin nu nees gars yi naa ko diwlin may nees kon yaakaar naa. problème bu rëy nar naa am entre diggante Real ak ak Liverpool te Real ñëpp xam nañ ne temps yi sans Benzema gars yi neen Real 50 pour cent la léegi nag li ñuy tàmbalee mbokk yi mooy équipe nationale bu Sénégal ku ne xam na ne Sénégal Aliou Cissé vendredi la war a publier liste bi vendredi mi ngi ko war a publier vendredi à partir de dix heures la joxe rendez-vous pour def conférence de presse sur Sénégal am nag actuellement dañuy tàmbalee ci gardien yi. ku ne xam ne ne Sénégal dafa bari ay gardien de but da cee am ñeent yoo xam ne wala juróom yoo xam ne ñëpp nee nañ kenn ku nekk mën naa dem mais man nag cent point de vue kenn ku ne xam ne ne Edouard Mendy euh, prix lévi bi ñu doon joxe mooy meilleur gardien am ci àddina bi moo jël quatrième kon kooku sans doute mooy le gardien titulaire du Sénégal mais man su ma doon jël numéro 2 Alfred Gomis moo nekkoon ci ossature bi moo nekkoon numéro 2 mais ñëpp xam nañ ne place am ñàkk na ko. ndax eh, Seyni Dieng moo ko gën ay performance yu mu def depuis daaw kon Seyni Dieng footballistiquement ni ko gars yi di waxee moom mooy numéro 2 man man Alfred sax su doon maay defar liste bi sama xalaat warul bokk ndax man damaa jàpp ne am na am yoo xam ne 4 gardiens la yóbbu mais li gën a sérieux mooy yóbbu 3 gardiens ndax nga mën a am ay joueurs yu bari ci liste 26 bi ndax boo yóbboo 4 gardiens dana la man dalay wàññil ay joueurs ci liste bi ne xam na ne 3 gardiens comme man su ma doon Aliou damay jël euh, su ma jëlee Seny Dieng Alfred Gomis numéro un Seny Dieng numéro deux man moori jaw bi nga xam ne moo ngi nekk France di ko toj ñëpp gis nañ ko. depuis championnat bi tàmbali ba léegi muy nekk gardien titulaire man du ma malgré Alfred Gomis légende la Sénégal champion d' Afrique la te Aliou nag nee woon moom du ay champion d' Afrique am du leen jëndee ñenn kon xam nañ ne dana bàyyi xel ci champion d' yooyu mais nag football pour man moom forme de moment la. jamono yi ñu toll Mody jaw du moroom Alfred Gomis Alfred Gomis gis nañ cinquième gardien ci classement ren bi la nekk cinquième gardien barki démb sax dafa mujj ab bëgg am temps di sa pour bëgg a dem mondial ba dem di football ci équipe réserve bi mais def erreur ba jël carton rouge ci équipe équipe réserve bu ren bi te loolu c'est catastrophe football du ko baale kon man su ma doon jël ñetti gardien ñett ñooñu lay jël ndax sama liste mën a mën a mën a ndax dañoo bari joueurs yu war a dem Sénégal dafa bari ay joueurs Aliou Cissé ay joueurs boppam dinaa ci ñëw. Mody Diaw sportivement ñiy seetaan football xam nañ ko te liste bi jàll mu ñëwoon na euh, bokkoon na ci gardien yi xam ne ñoo ñëwoon Sénégal malgré defagu fi titulaire mais nga ni maami gardien la xam nga le cinq grands championnats gardien bu fa nekk di jàpp titulaire rek pour man nekkatoo gardien bu ndaw sport yi sport ñiy seetaan sport daañu la xam jàpp naa ne guddi yi ñu toll am na ñoo xam ne sax dañ naan Seyni Dieng championship la nekk Angleterre mais ku ne xam ne ne championship c'est pas le même niveau kon jàpp naa ne ñetti gardien yooyu moom man su doon mën a te jàpp naa ñi xam football yëpp danañ d'accord ak man Alfred Gomis guddi yu ñu toog nekku ci coach Souren bu bees bi ñëw dafa ñëw secondé ko ci beneen plan ñu kii ko ren sax dañ ko abale dañ ko abale woon amuñu satisfaction ci moom ñu bàyyi ko mu dellusi malgré ak li def Sénégal lépp bu dul dañ koy yóbbu parce que mag la parce que war naa fekke mais bu dee sportivement warul dem léegi nag ñu ñëw ci défense bi devant Sénégal man pour man euh, ñi défenseur yi ñaari défenseur la ñu war a am dañuy jël kenn ku ne ak doubliram ak centralu Sénégal moom amul amul amul débat Kalidou Koulibaly Abdou Diallo ñoom ñooy ak centralu Sénégal mooy paire bi nga xam ne gëm naa ne amul benn paire centrale bu ko gën fii ci Afrique. bi Sénégal am ci moom mooy loolu Abdou Diallo c'est un joueur polyvalent. latéral gauche match Ligue des Champions yi am na ci benn match boo xam ne latéral gauche si bépp suur bi football retraite rek mun na la footballal comme six. ma loo loolu ci xalaat ci xalaatu nit ñi la mais coupe bi monde dafa xaw a jafe dinaa ci ñëw Abdou Diallo mais boo koy yóbbu moom da nga koy jël comme défenseur central. mën nga dem ba ci biir match yi nag nga am match yoo xam ne say latéral gauche wóolu wóoleen parce que dañoo am problème ci flanc gauche bi ci xelu nit ñi mais man pour man am nañ fi ay joueurs yu baax boo jëlee ak central bi jël Abdou Diallo ak ak ak euh, Koulibaly pour man actuellement Abdoulaye Seck c'est l'un des meilleurs joueurs sénégalais moom ak Pape Abdou Cissé moom mënuñu ko fee bàyyi pour man ñoom ñaar ñoo war a nekk seen ay doublure Pape Abdoulaye Seck gis nañ mu def doublé contre Paris Saint-Germain ci cinquième journée Ligue des Champions bi ngan di maami joueur la et puis joueur de tête la même bu dee na titulaire mën na mën nañ ko jël ci côté gauche bi mooy fi Saliou Ciss nekkoon ku ne xam ne ne Saliou Ciss depuis ñu jógee CAN championnat bi jeex dafa jógee club bi mu nekkoon Nancy wàcc troisième division renouvelé wul contrat mu ne dafa bëgg beneen club malheureusement boobu léegi amul club te Aliou Cissé dernière conférence presse du yóbbu mondial joueur bu amul club wala du sélectionné sax la wax joueur bu amul club te joueur euh, yu amul club li ci dansé mooy gis nañ euh, Brésil def ko ak ak Daniel Alves mais man d'accorduma si ndax koo xam ne da ngay mujj finalement dem di di di di di di di entraîner ak ay ay ay ay réserve wala ngay wuti fa entraînement problème la gis nañ Saliou Ciss un mois ci ginnaaw séen nañ ko ci joueur jàmbaar fii ci Sénégal muy dem di entraînement parce que am joué mais yaa ngi ak groupe bi di entraînement comme Kaaw Pa Matar Sarr footballul benn match ci Premier League bi presque mais mi ngi ak groupe Tottenham bi di am temps de amul temps de jeu mais mi ngi entraînement di am niveau di bokk li ñuy def mais boo amul club loolu lépp du la ci fekk dangay maa dem di def sa entraînement solo wala nga dem feneen di fa entraînement Saliou Ciss l'un des meilleurs joueurs sénégalais ci CAN bii ñu génn bokk na ci joueurs yi gën équipe bi bi bi kaaf génne Saliou Ciss moom mooy arrière gauche bi. kon day doon lu garaaw a grave Saliou Ciss bañ a dem mondial mais sportivement tamit su yër bu amut club su yër bu ko sélectionné wut am na lay lu mu ci def mën naa am lay parce que bu ko neexee mu sélectionné parce que Saliou Ciss légende la ci équipe bi dafa def ngan di maami kaan te dafa am dafa am benn euh, proximité bu am diggam ak Sadio Mané surtout dédoublement yi muy def diggam ak gis ngeen penalty bi mu indi contre Égypte day daw génn romb Sadio Mané Sadio Mané defal ko mu mu centré te tànk baa loolu gars yi di wax boroom tànku blem la mais nag amuñu problème foofu man pour man à 100 pour cent parce que Fodé Ballo-Touré ñu baree bari dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy xalab mais ñu bari di ko xalab seetaanuñ ko. ngan di maam yi la latéral mag la barki démb rek coach sam bi nekk Milan wax na ci moom nee na problème moom mooy ki mu ki mu bokkal poste Milan AC muy Théo Hernandez moom la mënta. pour mu football ci kaw kooku mënul jafe te kooku mooy capitaine u Milan AC Théo Hernandez ñëpp xam na c'est un grand joueur kon Fadel Ballo-Touré mënul yóbbu kooku ci banc bi moo tax amul temps temps bu doy Milan AC mais nag ci ngan ni maami club la ne te mi ngi dugg nag ay remplaçant wala bu Théo bi blessé mu dugg mais joueur bu mag a mag la mais nag mondial mondial mondial moom du ay fo Hollande la ñuy dajal war a am ay dem firis ñu lay romb war a am ay ngan di maami ñoom maleen joueur yoo xam ne toj nañ àddina bi te duñ tiit kon boo fay teg latéral da ngaa war a teg latéral bu expérimenté pour man am na expérience moom parce que mi ngi football Champions League mu ngi football Serie A seen grand championnat joueur boo ci gis moom joueur bu am expérience la ndax championnat yépp dafa danse mais am nañ doublure man pour man Ismaël Jacob Jacob li ma impressionné ci moom dama koy seetaan dama ko doon seetaan bi mu nekk Allemagne avant muy ñëw France Monaco mais formation allemand bi mu yor ndax fàtte ne moom football na ci espoiru Allemagne yi ba am ba football U17 après ci li jël euh, football U10 set yi bi mu demee ba ba kii woowuñu ko national bu mag bi ci la jël ay responsabilités mu ñëw Sénégal ñu gars yi wax bi nation comme suyeer yu bari léegi nag moom yàlla dogal na mu ngi mun football ko barki démb ci euh, Europa League bi gis nañ mu def passe décisif comme Krépin Diatta ci suuru match boobu noonu bi Monaco di gañ 2-0 kon man pour man côté gauche bi su doon damay yóbbu euh, Fodé Ballo Touré ak Ismaïla Sakop laa fa yóbbu xam naa ma baral tuuti balaa may jeexal 30 millions ah. ak Ismaïla Sakop ñoom ñaari laa fa yóbbu bu dee côté droit bi jàpp naa ne sans surprise foofu ma amul surprise Youssouf Sabali moom oh, ci Sénégal amuñu séer bu ko gën techniquement te it sens bi ñu ci am day football gauche day football droite gis nañ nag benn problème rek la am mooy séeru séeru infirmerie la day day bilancé rek dafa gaaw a bilancé mais bu wéree nekk ci nekk ci moom Sénégal am nañ sens moom. foofu amuñu problème moom doubliram Noah Fadiga doomu Khalilou Fadiga gis nañ moom depuis championnat tàmbali ba léegi ak euh, Brest gi nekk mu ngi football titulaire am na benn match boo xam ne sax dugal na te xool loolu xaaruñu ko mais mi ngi football titulaire di def nga di match kon moom am na am na am na pour nekk ci ku amuñu problème latéral gis nañu àllu si sax match bi passé mu naan day day modifier Moustapha Naam mais da doon wutal Moustapha Naam place rek. parce que dafa bëgg Moustapha Nam Sénégal yëpp ko bëgg parce que ñun sax dañuy wax la larme de Moustapha Nam bi moom bi ñu jëlee ko dem Afrique bi jooy rek la fa nekkee woon mooy borom jooy mais j'espère que nag du jooy yi moo ko yóbbu mondial jàpp naa ne performance moo war a yóbbu nit mondial bu dee ci côté droit bi ñaar ñi fa bokkal duñu ay moroomam léegi nag li nga wax ci kii Abdou Diallo mën ngaa dem benn match boo xam ne da xam ne Abdou Diallo tey da ngaa am problème da am problème nga jël Abdou Diallo def ko latéral gauche parce que foofa ña ña fa nekk yaakaar nga ne parce que du jàll moo leen ëpp expérience moo leen dàq football nga jël Abdou Diallo yóbbu ko latéral gauche am nga ay am nga ay am nga fa euh, Ablaye Seck am nga par exemple Pape Abdou Cissé mais et puis bu sa 23 jeexee nga am ku ne doublure am amaat ñaari suyeer da mën a jël suyeer bu mel ne Formose Mendy dolliwaat ko ci défense bi parce que boo jëlee liste euh, euh, poste bu ne ak 3 gardiens. léegi loolu boo ko jëlee da nga desaat yeneen trois jours da nga mën a dolliwaat benn attaquant dolliwaat benn milieu terrain dolliwaat benn défenseur ci liste 26 bi pour man Formose Mendy moom it suyeer la boo xam ne day football latéral droite di football ak central polyvalent la pour man moom la ñu war a jël ñëpp ñu ngi wax Moussa Niakhaté ci défense sax moom moo gën Abdou jàll mais actuellement nekkul forme dafa blessé plus de un mois ngi nii football lalul terrain bi pour man Moussa Niakhaté bu wéree à part Kalidou Koulibaly suyeer bu ko gën ci défense Sénégal newu ci. ngan di maami joueur la du joueur bu ndaw mais nag dafa bilancé man moo tax damay jël palaasu Formose Mendy ki na gis na ko fi muy nekk France capitaine la te day fubal titulaire te day fubal latéral ak match bi jàll Aliou Cissé latéral la ko defal te day fubal tamit comme ak central. milieu terrain bi nag jàpp naa ne ñett ñi may njëkk a jël moom mooy ñett ñi nga xam ne mooy ossature équipe bi Nampalys Mendy Idrissa Gana Gueye ak Yedel Cheikhou Kouyaté nga xam ne du bàyyi buuxuma nag ñuy titulaire. mais ñoom ñett loolu bu ñu ci ñëwee ba match yi waaj a tàmbali ci beneen émission dinaa ci ñëw ci titulaire yi mais ci maa ngi ci ci ci sélection bi ñooñu nag pour nga am seen i doublure jàpp naa ne loolu moom dafa leer dafa dafa dessin dessiné boppam ba pare. partie 6 ñëpp gis nañ ngan di match bi mu def démb toroxal Real Madrid merengue yi nañ ma baal nekk ci milieu terrain bi mel na deuxième mi-temps la dugg mais def na lu rëy partie 6 Pape Matar Sarr ku ne xam nañ ne milieu bu technique yenn technique yi moom lañ ci am. Pape Matar Sarr Pape bi nekk Marseille moom it il est très technique comme ñett ñooñu ak ñett ñi ma ñu tudd ñooy nekk six militaires yi nga xam ne moom la ñuy njëkk a tànn léegi nag nga des bu dee 4-3-3 nga def da ngay desal ñetti attaquant attaquant yi Sadio Mané Ismaïla Sarr Boulaye Dieng ñoo ñooy titulaire Sénégal ñooy titulaire Sénégal nga wutal leen ay double foofu nag fi lay jafe ndax Sénégal li am ci attaquant yi dugal jamono yi dafa bari. kon ne gis na mbay Diagne li mu fi defoon ba xuloo Aliou Cissé ngi dugal rek di fëgg bunt bi gars yi bu koŋ-koŋ yi ay bit lañ koy defee mi ngi dugal turki rek ngir bëgg a dugg si gis nañ benn joueur mel ne Nicolas Jackson nga xam ne dafa ñëw Villarreal sampena Espagne nga xam ne ku amul technique di fa football mu ñëw bees di football di dugal ba pare club yu mag yépp bëgg ko kon joueur bu mel noonu bu xamul woon dara nit ñi duñ ko teg bët ndax Aliou Cissé koy woo mais dafa fekk affaire bi xat Famara Diédhiou dafa jóge ci blessure ndax Aliou Cissé da koy woo man sama pare dinaa wax sama xalaat yàgg naa bilancé un mois dafa bilancé daanaka mi ngi doo doog a tàmbaliwaat football Habib Diallo mi ngi dugal avec Strasbourg dugal na 5 bit xaw ma 6 bit bi saison bi tàmbalee léegi te moom musul am sens Sénégal parce que bokk na ci ngan di maami attaquant yi Sénégal gën a am mais dafa mel ne sens am Sénégal suñu attaquant bi Bamba Dieng ku ne xam ne problème yi amoon Marseille mais mi ngi dañ mais ñëpp xam nañu Bamba façon football bi muy football est-ce que Sénégal mën na koo ñàkk ci mondial bi ndax match day am fu mu demee fu mu toll da ngay soxla saaru attaquant yi mel ne Bamba Dieng Bamba Dieng wala gardien bi génne ko sur spontané na bas bal nu mu ko fekkee mën na koo dóoree te ñi Sénégal am di football ak ñoom attaquant bu mel ne Bamba Dieng da cee baax ndax Bamba Dieng sur bu gaaw te ñun suñu centre dañoo gaaw Ismaïla dafa gaaw Sadio gaaw kon Bamba man pour man moo war a doon doubliru Boulaye Dia Boulaye Dia moom mooy tuuti ndax attaquant yi Sénégal am moo ci dàq football te dafa arrangé Sadio Mané ndax sueur de appui la mi suppa moting arrangé Sadio Mané Bayern na sueur de appui la attaquant de raquette li Benzema def attaquant xam dafa mën football day eh, eh, yi libre mu mën di la repousser ay bal ngay daw di dugg heure bu football ak Sénégal Sadio Mané day dox loolu ñëpp gis nañ ko kon Boulaye Dia mooy mooy sueur titulaire bi léegi nag pour man beneen doublure bële Elimane moom ñëpp xam nañu Aliou Cissé ko ndax day def nga di Sénégal yi nekk ci Europe actuellement moo ci gën a dox neuf bi marqué na ko ak trois passes décisives actuellement nii ci champion championship bi te ku ne xam ne ne championship am na niveau championnat wu France wala championnat wu Portugal kon Iliman moom forcément moo war doon doublure Sadio Mané beneen doublure bale Krépin Diatta bu Ismaïla Sarr kon ñetti attaquant yi Ismaïla Sarr Sadio Mané Boulaye ja waaye ñeneen ñett ñi Iliman Ndiaye Krépin Diatta ak ak ak ak ak Bamba Dieng léegi nag looloo tax équipe bi xat yaa ngi desal lu man ñeenti attaquant yoo xam ne ñëpp ngi dugal te boo defee loolu ba pare place bu ne am ñaar ñett suyeer rek nga dese parce que liste 26 nga am 10 suyeer yi ci biir terrain bi ak 10 yi leen i kii loolu boo ko jëlee 20 la ak 3 gardiens yi muy 23 suyeer nga desal 6 suyeer 6 suyeer yooyu parce que bu ne da nga fay renforcer kenn man su ma doon renforcer ci attaque bi Habib Diallo lay jëlee ñu ne dañoo war a jël Nicolas Jackson parce que actuellement nangam mais man pour man bu doon dañuy xool ñu war koo jox cëram ndax champion Afrique bi mu doon dañ ko war a jox cëram dugal ko yóbbu ko mais du loolu dong daa doy pour ñu yóbbu nit mais nag dafa def ay performance nekk Strasbourg di def nga ni match aline ak Kevin Gamero benn millier terrain bi benn milieu terrain bi foofu nag dafa xat ndax milieu terrain yi ñuy fëgg bëgg dugg si moo bari ndax gis nañ ay ñoom limaan euh, ki fële nu mu tudd euh, Loum Ndiaye mi ngi def ngan di mat si fële ca Reading man su ma doon jël ak technicité bi mu am moom lay jël mooy Mamadou Loum njaay renforcer ko défense bi waxoon na naa Ferland Ousmane di lay jël malgré nag dana bari ñu fi bàyyi dana bari ñu ñaxtu gis nañ euh, gardien bu mel ne Bingourou Kamara doon na ñëw Sénégal mi ngi wax ne bu bu ko Aliou yóbbu ci mondial bi ngan na maam yi déception lay doon ci moom. te gis nga ñeent ñee man maa ngi wax ñu wàññi Alfred Gomis maa ngi wax ñu wàññi Alfred Gomis te bi bi Nguru Kamara mi ngi mi ngi mi ngi ci tuuti di fëgg kon jàpp naa ne foofu dina xat li ci des nag Aliou Cissé suñu xalaat rek la ñuy wax parce que comme ñun ay sportif lañ te se football la ñuy seetaan di ko dund au niveau national au niveau international. li ma def rek mooy wax suñu xalaat mais jàpp naa ne lii ma joxe bu dee dana am changement benn lay doon parce que Aliou Cissé dafa am ay suuri boppam yoo xam ne pour mu baleen ginnaaw gis na ko mel ne Moustapha Naam Krépin Diatta heureusement jamono yi mu ngi dox am na place ci équipe bi pour man lii bu dee am changement benn wala ñaari suur dana ci am entre Nicolas Jackson ci troisième attaquant bi ñu indi moom lay doon wala Famara Diédhiou lay doon parce que Famara Diédhiou ku ne xam na ne moom am na benn match moo fi dugal 3 buts l'un des meilleurs attaquants ñu génn ma bi rek moo doon titulaire match yi yenn match yi moom ak Boulaye kon jàpp naa ne foofa dana xat entre Habib Diallo Boulaye Dia Boulaye Dia sax moom place am leer na pour man mook Bamba Dieng waaye Nicolas Jackson Habib Diallo ak ak ak Famara Diédhiou ba ci Mbaye Diagne mi fekk Mbaye Diagne moom jàpp naa ne Aliou Sédou ko parce que man li ma gëm sama conviction la day yàq groupe moom moo fi yóbbu jële woon booy yi bi ñu nekkee Algérie Égypte ca bi bi Algérie jële woon dem di bàlleloo boo yeeg yooyu xeet séer yooyu du dugg duñ dugg ci groupe Aliou Cissé man xam naa Aliou léegi nag moo ci des kon dañuy toog diglu ko bu jàllee semaine prochaine dana ñëw wax suñu xalaat naka la demee léegi nag wax ci équipe bi nga xam ne nag ñii ñu tànn ñëpp ñan ñoo équipe type bi parce que ñi ma jiital tekkuñ ne ay équipe type lañ parce que Cheikh Kouyaté boole naa ma njëkk a lim yëpp nag danañ ko waxtaanee ci biir na ñoo xam ne ñoo xalaat a ñëw imposé ci que daf seen ay apprenti dañ koo téye ci équipe bi ay ñoom gànna caaxaan warul leen a génne ci équipe bi kon lu foofu rek la problème bi nekk nag problème titulaire mais à part lu ci bari xam nañ ko. rek laal tuuti ci sélection yi nga xam ne jot nañoo def seen seen seen seen ay liste wax ci ñi nga xam ne tamit ñoo ngi leen di xaar ak équipe bu mel ne France nga xam ne dafa bari ay blessures ñëpp a ngi leen di kii nag. suba la liste bi génn mais man gën na France dafa bari ay joueurs France man ngaa génne sans man rek xam naa sans joueurs France yoo xam ne ñëpp au niveau lañ dañoo bari ay joueurs africain yëpp dañ faa nationalité dañoo bari joueurs ak naar yi boo dee xool ña fay toj ñëpp duñu français boo jëlee Karim Benzema maam yaa nga Algérie nga jël Kylian Mbappé maam yaa nga Cameroun wala baayam sax koo ci mën di jël Ngolo Kanté mi ñu doon sago ak Paul Pogba malheureusement ou heureusement ñoom ñaar ñëpp bilancé nañ mais nag dañoo bari joueur ku ne xam ne ne France seen boo demee Allemagne ossature bu défense ba daanaka Hernandez frère Théo Benjamin Pavard dayal Upamecano man pour man fa ak jamono yu ñu toll France amul défense bu gën dayal Upamecano mais nag naka la ñuy defee Raphaël Varane gis nañ dafa blessé wéragut est-ce que Deschamps dana jël risque dugal ko Deschamps waxoon na du jël moom du sélectionné suyur boo xam ne dafa blessé moom mi waxoon na ko. milieu terrain moom danañ ci am problème ndax Pogba sax gërawut Pogba mun na la defal offensivement lu bari mais mën na la pertal défensivement lu bari ñu xam football seetaan football Pogba sama équipe la nekkoon di Manchester United. mais boo boo boo bàyyee xel Ligue des Nations Pogba moo éliminé France ñetti perte bal la ci milieu terrain yu tegaloo bit bu ñu dugal France ci tànk ci Pogba yi la jaar mais Pogba sans France sans Ngolo Kanté moom 80 la. mën naa ko wax Ngolo Kanté moom gars yi dañ koy wax moom borom l'homme de double moteur rox gars yi tudde gars yi ne ñaari xol la yor du sonn bu sonn mu teggi teg beneen match bi yëpp da koy daw blessure yi blessé sax nit ñi nee nañ li mu joxe ci trois 300 yi dafa bari dafa ëpp depuis 2018 ba léegi li mu joxe ci en tant que homme dafa ëpp nit attanu ko moo tax dafa blessé woon bañ faj ko ba mu wér mu ñëwaat entraînement affaire bi teppeekuwaat yéene wuñ ko ko mais gis France lañ fa gis actuellement ak Adrien Rabiot moo fi nekk ci France boo xam ne yaa ngi toj ci milieu terrain yi moo fi gën a toj. Tchouaméni waaw ni bu Real Madrid mais pour man amul expérience mi ngi football euh, Real mi ngi titulaire mais pour man bala ñëw am ossature bu mel ne Ngolo Kanté ak ak ak ak ak avant bi ñu dem mondial bi dañoo amoon ay nit ñu dëgër comme Blaise Matuidi Boubacar Kamara amul boobu niveau français yoo koy tàgg rek te et puis ci blessure la jógee man su doon man ma ko wax deux bi samp bu football bi tàmbalee ba la xam nga coupe bu blessé woon dama ne la blessé dafa blessé mais dama ne la ci blessure la jógee te Boubacar Kamara niveau bi bi ko nit ñi a yóbbu du ci boobu niveau la nekk non ci niveau Ngolo Kanté en tout cas Adrien Rabiot Orléans Tchouaméni wala sax nga ne ma euh, Eduardo Camavinga non man France contre leen de non man ma man man man ku ma bëggut bëgguma la amu problème boobu am na droit soit xam nga li gars yi wax ci biir nationaux yi. xam nga li ci Sénégal am la ci France am malgré suñuy doom lañ suñuy deret lañ mais nag France leen juddulu jàngal lu leen yar leen comme Kalidou Koulibaly comme yeneen suyeer ci école yi France yi lañ jàng fan am bu ñu fu balee France seen affaire mais comme ñëwut. man su doon man a laax du ma ko woo te gis nañ descend da ko fee trop bi mu ko woowee pour bañ mu ñëw Sénégal da ko da ko humilier da ko woo pare yóbbu ko ca kaw football loowu ko boolewu ko ci équipe bi mu war a football waaw mais loolu coow lee tax mu def ko rek léegi France dañuy xaar suba euh, Desampes ni ko gars yi di waxee mu defar équipe am ñu mën ci joxe suñu analyse. mën na ci bokk comme mën na ci bañ a bokk mais fooru France daal fenn la Abdou Karim Benzema ak Kylian Mbappé. France moom ku mën a rey ren attaque attaque attaque bi mën na laa rey Ousmane Dembélé bi nga xam ne moment bi kenn mënu koo téye waaw mais avec Mbappé ak Karim jàpp na France mën na faire mal loo loo loolu France sañu ko loolu waxi kii la rek à cause de blessure bi mu def wala non non loolu loolu du bëree du du du rumeur boo xam ne sportivement ci ci milieu sport bi ci la jógee kon rumeur bu feneen la milieu sport bi moom dégguma ci loolu en tout cas Karim moo yaakaaru France. Antoine Griezmann comme parent la moo tax français yi di ko coow mais ñëpp xam nañ ne moom day sant yàlla mais Mbappé Ousmane Dembélé Karim Benzema mën nañoo faire mal nga doog a indi kenn ci les commandes ba pare dañoo bari ay joueurs yu nekk mun nga jël Colomani bi nekkoon Nantes ren mu nekk mu dem Allemagne mun nga jël Moussa Diaby mun nga jël euh, waa ji nu mu tuddati attaquant Leipzig bi Touré may rëcc dañoo bari ay joueurs nga xam ne actuellement mooy meilleur buteur bu Bundesliga dañoo bari ay joueurs. léegi nag moom mooy xool ñan lay yóbbu ak ñan la fi bàyyi gis nga Anthony Martial wér na ci blessure la jóge est-ce que dana ko yóbbu wala du ko yóbbu coow li bari nañu blessure retralu Barcelone bi Jules Koundé dana ko yóbbu wala du ko yóbbu ñoom langale ña nga xam ne ñoo nekkoon ossature équipe ba mais milieu terrain bi daal fii laa gis tuuti kii ndax Ngolo Kanté man waxuma Pogba Ngolo Kanté laa xam ne remplacer ko dana jafe. léegi nag balaa may ñëw ci Ligue des bi damay ñëw benn benn liste moo fi génn muy les Seleção muy Bruxelles euh, yi nga xam ne ñoom mën nañu wax ne ñoo ëpp lu jël coupe du monde bi te ñoom heure bi ñu ñëw coupe du monde pour ñoom ko war a gañ mu am benn défi boo xam ne nag Neymar da da ko da ko da ko da ko war a moom Brésil ci ndoxam lañ ko teg te daa war a gañ coupe du monde bi doog a dab fay moroomam nekk ndax Brésil da ngay tudd ay légende di tudd star ñu naan Luis Nazario Ronaldo di tudd ñoom Rivaldo di tudd séeri yu mag ya ba jàpp ci ñoom Pelé ñoom Garrincha ñoom Socrates kenn ku ci nekk def nga say affaire ñëw gañ coupe du monde euh, euh, Neymar nag dafa def ci football lu bari waaye nag dafa am lu mu desal ndax dafa desal ñaar gañeegul ballon d'or gañeegul coupe du monde ren jii nag defeem la xam nga lu tax bu gañee avec coupe du monde bi avec Brésil lu mu ci dolli Paris bu góorgóorloo mais Paris moom góoma ne dana romb Bayern na ci Ligue des champions bi bu góorgóorlu woon tuuti rek sori ci Ligue des champions dana mën a jël ballon d'or mais nag malheureusement dañoo ci mille de Berlin ni ko gars yi di waxee man pour man équipe Brésil bi man dama cee gis ay fay coach Brésil bi li mu njëkk def milieu terrain yi mu yóbbu yëpp cinq millier terrain la yóbbu dix attaquant descend attaquant dix ay latéral yi mu yóbbu ay latéral yu fonox la la Brésil yóbbu yu fonox ay gardien de but moom ñoo ko gën la ci àdduna bi Alisson Becker ak Ederson bi nekk Manchester City seen benn gardien bi xaw ma ko j'espère que Brésil la nekk ndax Brésil moom seen joueur mën nañoo nekk seen biir championnat troisième bi mais ñaari gardien yooyu moom nit mënul am gardien bu leen gën l'un des meilleurs gardiens du monde ñett ñooñu Alisson Becker ñoom ñaar ku ku ku mu rek dalaa neex Ederson sax bu dee balle de moo ko dàq kay ndax football léegi football tànk da cee bokk Edouard Mendy looloo ko xaw a génne woon ci équipe bu Chelsea bi parce que Kepa da koo dàq jàpp kese mais bal bi ñu lay paas di def ay relance loolu daa bokk ci football léegi même défenseur bi mënul relance léegi nekkatoo défenseur Pape Abdou Cissé loolu rek kay souci mënul relance léegi Brésil gardien amuñ problème ak central bi xaw naa fa nox Thiago Silva pour baax na mais bu ko Brésil titulaire dana am lu ko metti te Thiago Silva dafa am problème concentration bu mat si réyee rek wala mu am nga ni maa mi attaquant faaw attaquant boobu day dugal heure bu dajee ak attaquant mag attaquant ba ko moom Thiago Silva te moom mooy capitaine bi presque mooy si patron ba mooy patron divance ba gis nañ fa nag am na ñu am na ñaar ñu àndal ñu baax wala ñett défenseur Real Madrid bi. moo moo fa nekk Bremer bi nga xam ne moo nekk si Juventus ak Marquinhos bi nekk Paris. mais pour man ak central ba tane na mais xam nga fan mooy seen problème Brésil rétro yi Brésil bu demee ba jëliwaat. Daniel Alves laa bëgg a wax nga xam ne presque amatul amatul club. Euh, Alessandro bi nekk siif nga xam ne gone yi moom la ñu fawantoo biir Italie ku ko romb jàll. Alex Telles bi nga xam ne moo nekk Manchester United man pour man wax dëgg yàlla Brésil moo na am latéral yu gën yooyu boo ko comparé ak yeneen latéral yi xoolal équipe bu Portugal nga jël seen soo ay Cancelo ay ay ay Rafael Guerreiro ay Diego Dalot xoolal yooyu façon latéral Nuno Mendes bi nekk Paris façon latéral nga xool Brésil si foofu latéral yi mu jël. dañoo xeewi man foofu rek laa gisee souci beneen bi nag mooy bàyyi gi nga xam ne bàyyi nañ ko Firmino loolu moom sportif yëpp d'accord ci attaquant yi Brésil woo yëpp amul koo xam ne du Firmino à part ñoom Neymar mais attaquant de pointe yi laa waxum attaquant euh, Chérif bal ci côté mais attaquant pointe amul ko ci koo xam ne Firmino moo lay gën ak statistique Firmino dugal gun na 5 buts ou 6 ak 3 passes décisives Richarlison mi ñu ko jëndee Richarlison mi ñu ko jëndee. Richarlison 3 bi la dugalagul te dafa jógee ci blessure mi ngi sax entraînement entraînement gu ak bi Gabriel Suisse moom footballistiquement moo gën actuellement moo gën a taxaw parce que équipe bam nekk la moom Martinelli Gabriel Martinelli ñoom pour man baax nañ te Brésil erreur bi ñu bi nga xam ne moo nekk Arsenal wuru ko woon ba ginnaaw ci défenseur central yi bi nga xamee ne jël na ba pare desala trois sur wuru ko a renforcer waat ci attaquant dafa waroon a dolli benn mais Brésil moom ñoom pour ñoom dañoo war a dugal lu bari rek fonk ñu défense fonk ñu ko 100 pour cent ndax seen retard yi ñu yóbbu bu doon bàyyi nañ xel dëgg ak àddina toll excentré yu mën a fa bëri duñu yóbbu séeréer xew yooyu loolu sama xalaat la milieu terrain bi nag ñu fa yóbbu bëriwuñ mais actuellement milieu yi gën ci àddina bi ñoom ñoo ko yor ñëpp gis nañ Bruno Guimaraes bu Newcastle actuellement l'un des meilleurs milieux terrain du monde dafa mun football man Douglas Luiz bi nga xam ne sax jàppoon naa ko yóbbu ñëpp di ko bàyyi xel Angleterre yóbbuwuñ ko parce que milieu bi dafa xat Casemiro ku ne daanaka mooy mooy Brésil Lucas Paqueta Fred bi nekk Manchester United seen milieu terrain baax na mais attaquant yi ñóbbu moo bari. ba non du du loolu du loolu sax ña gën du Casemiro actuellement Bruno Guimaraes Lucas Paqueta ñoo fa gën a taxaw. waa mais Casemiro moom Casemiro ak lu mën di xew moom. mi ngi mel na nga doon ñu doon dem nii gars yi ne nañ fi bàyyi Cheikh Kouyaté wala nañ fi bàyyi Gana Gueye loolu du xalaat sax Casemiro mooy Brésil te mag mag la mais bàyyi ko genn ko ne kon dafa tuuti li ñu yóbbu laa bëgg wax parce que moom nañoo yóbbu si équipe yi dañuy yóbbu huit milieu terrain ak huit attaquant wala six attaquant mais Brésil dix attaquant la yóbbu ak cinq milieu terrain la ci des mu def ko ci défense bi ak gardien bi foofu daal gis si li ci des nag yenn équipe yi ñoom Allemagne ñoom Belgique équipe yu ngand yi ñoom Portugal dinañ génn seen sueur xam naa seen i seen i bu demee ba ba liste yi mat dimanche prochain ndax ku ne xam na ne championnat yi gars yi dañuy continuer tey championnat am na Angleterre dañuy football coupe weekend prochain la le 12 ak le 13 championnat day am. léegi nag bu bu championnat yi jeexee le ci la ñuy ci la ci ci ci la ci la fekk lépp di jeex ñu mën a ñëw nag def dernier dernier briefing bi naka la liste yi demee. dernier suuru championnat yi parce que suur bu ci moy tuut bi leesa xañ na fi moo tax Sadio Mané dañuy fubal tey ñoom na def ndànk na def ndànk euh, mondial bi bu desee nii benn suyeer warut a joxe 100 pour cent sa équipe nationale dañ laa soxla say doomi réew soxla la nañ def ak réserve surtout Ismaïla Sarr dañuy fubal tey ñoom it coupe Angleterre te anglais yi seen coupe yi moo gën a metti seen championnat yi na def ndànk te moom gaañu da koo yomb damaa tiit ci moom Youssouf Sabaly na def ndànk fan yi Betis dañ koo gëm di ko titulaire loo mais na def ndànk loolu daal la amoon ci lu may wax Ligue des champions bi ci boros rek ñaari match yoo xam ne moom àddina bépp moom la ñu xaar ndax temps bi dafa gudd mooy Paris Bayern Munich man li ma wax ci sama page Facebook keroog bi mu jeexee Paris man nañoo takk seeni bagage man loolu mooy li ma gëm ndax français yi ñoom dañoo mos am complexe allemand yi guerre mondiale ba rek dañoo ragal allemand yi bu ñu dajeek allemand yi dañuy xoox français yi kay ay Belgique la yëpp ay Portugal ay Espagne fu mu leen jàppee defal leen bagage luñ ko man man da leen defal bagage parce que psychologique la psychologiquement la mais gis nga Allemagne jàpp naa ne day defal bagage te guddi yu ñu toll pour man attaque bi Bayern Munich yor. attunu euh, euh, pare attunu ko te pare équipe la boo xam ne comme Messi mooy koo xam ne dënd bi rek am doole ndigg li sew tànk yi sew pare défense ba baaxut milieu terrain ba baaxut par rapport ak attaque bi kon xam ne défense pare day jël bit te attaquant Bayern bu lañ bu ñu la jekkoo dooñu la dugal 5 bit wala 6 te ëpp Choupo-Moting temps yi dafa nekk ci forme Sadio Mané dafa nekk ci forme Sadio Mané passe nga koo gënal bit moom day jël rek di passe kon nag ndayem ndànk beneen match ba mooy Liverpool contre Bayern Munich wax naa ko léegi double derby la Real am na am na am na am na am na ngan di maami na teey ci Liverpool te teey ci Jürgen Klopp Klopp nag Real da koo def ñaari yoon bi yoon nag moom ci moom la nar a des ñu wane ndax grand club la wala du du du grand bu perte huitième de finale bi euh, championnat bi ñëpp xam nañu perte na ko presque bokk ci big four bu Angleterre na ko leer na day ñàkk Liverpool ak lu mu fa mos def football amul kóllëre de da ngay gis coach bu jël cinq coupe gañ cinq match gars yi dàq la. football amut kóllëre na bàyyi xel loolu kon gars yi rendez-vous ci fan yi ci kanam.